Nous sommes nuyu ñëpp di sénégalais yëpp di nuyu suñu mbokk wayanamaar leen di wax ni l'entreprise de destruction de d'un mouvement aussi important que Y'en a dans ce pays a déjà échoué parce que lii lé dañ ciy ut lenn te yenn question yi fi jibse woon moi nous ñuy def ba bu mënul détruire mouvement bi par la voie judiciaire nañ ko détruire moralement ba ku taxawati ci mouvement bi ci télé di wax sénégalais bi ne cim ça ne passe pas ça ne passera pas parce que it su doon sax liñu ñu ñaari membre ci Y en a ku def le link day dugg ci liñuy wax mauvaise foi ci tubaab waye nak dugal ci bopp nit ñi ba suba Alioune Sané bu ñu ko invité ñu ne ah ñoom de nii bu euh, euh, fu ma la demee télé ñu ne ñoom de nii loolu ça ne passe mouvement dafa am ligne am ay principe yu tax muy xeex tant que ligne yu ligne boobu ak principe boobu mouvement bi dans sa globalité dévié wu ci la lu mun a topp kenn wala keneen ci mouvement bi mënuñu ko jël teg ko ci ndodd mouvement bi yëpp. jàpp ni tey la Y'en a marre war a gën a am doole ak taxawaay ci réew mi parce que nag lu yëngu rek li ko yëngal ko ëpp doole buñ demee ba cible Y'en a dafa fekk taxawaayam am na ñu mu gérer ci réew mi parce que ku soxalul kenn kenn du la pexeel ñaareel bi muy li may wax rek ci li tax ñu teew fii mois de février mars soriwul gën saa gudd juróomi weer la te bi coow li jëbee bokk na ci njëkk a ñëw taxaw ñëw sama kër seet si ma yaanaamaar la te délégation boobu Simon ngi ci woon Fou Malade ngi ci woon Aliou a ngi ci woon a ngi ci woon euh, kilifa ngi ci woon ñu ñëw taxaw ne ma nag suñu yoon newul ci politique nous ne sommes pas des acteurs

lu xew rek ñu ne non c'est des politiciens déguisés diw moo nekk seen gannaaw gis nga ñun ku bëgg a def politique dëgg du ci yaanaamaar nga koy yaakaare soo duggul ci àll bii dem def un travail politique sur la base d'un discours politique ba su élection suñ ko woon jotee bu ñuy wàññi di nga xam ni euh, amoo dara kon la ñu doon dajale ak yaanaamaar c'était des combats de principe ci suñuy ressources naturelles ci euh, prédation foncière bi ak yeneen yeneen yoo xam ne sénégalais bu ne mun na ko bokk ak beneen sénégalais indépendamment de votre forme d'organisation waaye damay jël exemple ci kenn def seede fii muy caat wala muy kilifa gannaaw bi Y'en a marre kilifa musuma koo miin Dieu m'est témoin jusqu'au mois de février defe naa caat mi sax laa gënoon a miin ñuy wootante de temps en temps ana sama livre ak yu demee noonu mais vu événement yi gannaaw le lendemain dafa ñëwaat sama kër ñëw toog ñu waxtaan lu yàgg mun depuis le 9 février jusqu'au 3 mars à jour boo xam ne kilifa ñëwul sama Nous musul ñaari fan mu sama son soutien waxtaan Serigne Bassirou Gueye bi di procureur da ko ci bureau bi mu mu ne ko ngeen di Sonko que yeen ñëpp di ngeen ci je tiens à le dire ici parce que nit ñi faut xam link bi yeen di ngeen ci problème d'ailleurs Sonko va aller en prison il va pourrir en prison il y a certificat médical bi kilifa que ko ñun yor certificat médical mu ne ko bobu baxul mu ne ko bobu nek ci PV gendarmerie nga bobu baxul yo xam nga benen mu ne ko de toute façon il faut aller en prison kilifa ne ko bu yóbboo ngeen préparer ñu ay cellule ndax ñoo koy ci prison ba ci ko xam ne miinante wuñu won parce que li ngeen bëgg a def du deug jaay doole la li kilifa dafa jóge fofu ñew sama kër ñu tok waxtaan ci waye li gën yéme yéeme sëñ gay Gueye daf ko ne dañu toog rek sama soxna andi reer bi ñu teg commencé reer ma présente ko soxna si yooyu mu yëngal bopp ma ko lu xew mu ma sëñ Bassirou Gueye ngeen jéggal ma ci ko ah lu xew mu man daf ma ne Sonko sax d'ailleurs këram tas na jabar ji jël na bagage am ñibbi na ban rapport la am ak travail procureur ba di toppatoo kër jàmbur ndax tas na wala tasul c'est de la méchanceté gratuite et bête ça n'a rien à voir avec la justice que je mooy justice Sénégal Il y a un problème au Sénégal Le koy tas dina jóge ci justice te ñeent ci biir justice bi ab procureur la ab doyen des juges la wala un juge d'instruction conseil constitutionnel cour suprême bu eesuwul Nous, nous avons les bras armés judiciaire et politique de Macky Sall ñun sommes ñu koy seetaan est-ce que war nañoo 17 millions de sénégalais suñ nous lii ngeen war a àttee nga teg ko fële ñu ne la fexeel ba tëj Aliou Sané nga ne tey su ma naroon dem créer sax ay charge dinaa ko créer mais il faut mu des kaso avec une méchanceté que rien n'explique et j'interpelle la justice toute la justice parce que nag nañu waxante dëgg soo waxee ñu ne dafa l'institution. institution sénégalais c'est le peuple sénégalais n'est pas les 300 magistrats ils doivent rendre justice au nom du peuple sénégalais non pas au nom de Macky Sall nous avons des am na ci ñoom ñu nous avons ñun xam nañ ñi ñi baax ëpp def ci justice dul yoon te ils sont quelque part complices balaa may dee ñu la justice marche bien ce n'est pas parce qu'il y a quelques cas mais quelques cas sont dañ il y yàlla wax ci ne ku dafa mel ni nga àdduna yëpp koo tëj ci loo ne du yoon dafa mel nga parce que la liberté est sacrée yàlla dafa mooñaale nit ak liberté muy dem di ñëw di régler ay problème nga jël nit ci lu dul yoon féetale caabi ci gannaaw ba pare dem nekk sa ceebu jën naan sa ataaya te di foog say gis ay ba nga banaliser ces injustices là moo tas réew sa tas dina tas Sénégal suñ ci parce que quand du ko nangu je réitère ce que j'ai toujours dit le droit à la résistance face à l'oppression su Macky Sall jàppee ni voter ay loi yu fay fayda ci terroriste dem suréquipé ay gendarmerie moy problème bi na dem laaj wa Algérie lañ wax Soudan la un peuple qui ne qui dit non ken mënu ko té ñun nak jàppoon nañ ni les événements de mars dina ko dello xelam tuuti mais lié y a entreprise systématique de ciblage et de liquidation de gens simplement parce qu'ils ont dit non ce dossier est vide L'État ñu escroquerie qui a escroqué qui une affaire privée ni qui déposé une plainte a une escroquerie corruption mais vous l'article article 159 code pénal pour corruption il faut un agent public boo xam ne dañ koo jox pour que en échange mu def wala mu def agent public bi après ils mettent leur leur leur connerie de x excuse-moi du terme comme dit Barthélémy c'est du foutage de gueule tu prends tu mets x mais kan la ñu corrompre dans cette affaire là parce qu'il faut coûte que coûte fabriquer des preuves pour que nous ayons des prédications. mais nous, ay borom kër lañu dañoo yor doom yor des activités yow mi leen tëj gënoo leen Macky Sall mi leen tëj gënu leen te tey su jugee palais dina dem toog ak njabootam et on nous dit laissez passer balaa may dee ñu ne Sénégal réewu jàmm réewu jàmm day fekk tous les acteurs dox jàmm te yow mi ñu jox nguur pour nga améliorer le sort des Sénégalais nga bañ ko utiliser pour di dal ci kaw nit ñi ma daaneel nag ci wax ni nous serons à côté de Yanamar a marre dafa am combat yoo xam ne bu jotee. Bonjour nangu fumisterie yi waaye c'est politique c'est pas man bi ci tolle ñi ñëw duñu politicien mais suñu taxawloon heure bi du ma toog fii di wax dafa am fu mbir di toll man je ne suis pas là en tant que politique je suis là parce que mes frères kilifa mousma woowee Sonko ñancoo la je suis là parce que dañoo jël justice instrumentalisée ko une fois de plus pour liquider des gens qui ont su ma leen xamuloon sax war naa taxaw waxuma laa ma xam la et vous aurez tout notre soutien nous mènerons ce combat ensemble su la rue dinañ dem dans la rue judiciairement ñu ngi ciy xeex boobu ba léegi loolu laa bëggoon daanelee di masawu njaadamaat mm, di famille kilifa ay waajuram ay mbokkam soxnaam ay Domam ñëpp ñu ngi di masawu ne ils nous auront, tous à côté de nous Simon ce combat on le portera ensemble Inshallah. parce que ce que Macky Sall veut faire de ce pays ça ne passera pas et je termine par lancer encore un appel à la jeunesse de ce pays c'est votre avenir qu'on veut compromettre parce que l'IREP ça participe à un plan politique de confiscation du pouvoir par des gens incompétents qui n'ont réussi à rien faire de bon pendant 10 ans et qui vont rester encore 10 ans. Je vous remercie.